géej gi jaxasoo ak xeetu jën yi ñu koy nooyi fii waaye lu ko sorewul noonu ab air bu pollué te jaxasoo ak jën bi nga xam ne dañ ko daal di lakk li mel nag moom moo lay xeeñ boo yegsee fii ci situ Xelkom fii nag ay junni junni jigéen ñoom ñoo fi daal di liggéeyee lu jëm ci wàllu transformation a di jën bi daldi koy jël lakk ko def ko keccax mu doon liggéey boo xam ne amul noppal soxna yi daal di nekk ci sit bi di Xelcom jege loolu centrale à charbon bi ñuy woowee Sendou bile centrale nag. ñoom moo doon seen cauchemar. premier jafe-jafe bi mooy bi ñu déggee ni euh, centrale à charbon nañ ko fi def ak ñu xam euh, li mu mën a yàq si euh, jaww ak économique lépp donc depuis 2009 ñu ngi lutter contre la centrale à charbon te xalaat naa ne depuis 2009 ay nit yu jël seen temps bépp consacré si pour centrale à charbon taxaw fi si bari loolu rek premier jafe-jafe la. centrale bi ñu teg ko fi ci atum laata loolu. taxoon askan wi bañ ko loolu ba tax ñu génn di manifester. ñun bëgguñu centrale bi tey bëgguñu centrale bi ëllëg sur le plan national et international nu ngi siy dox lu ñu man dox moo wane ne centrale bi gënnu ko taal jëppët te gis ngeen nu taal ko jëppët ñu taal lii jëppët ni la ñu fas kee taal lii jëppët. ginnaaw manifester yoon ñu def yëpp terewul centrale bi daal dinay taxaw ci atum 2018 nag la tàmbalee liggéey. liggéey boobu ba mu tàmbalee rek ñoom jigéen ñi daal di tàmbalee am ay jafe-jafe ci seen gisin ñooy dem géej bu ñu ñëwee ñun ñu war si terlu ñu ne am na ay euh, ndox yu nga xam ne day tàng ñu war a sotti biir géej mu yàq ndox jën yu ndaw yi nekk si biir géej loolu tam problème la fii ñu taxaw nii euh, weer bi daaw ay mois de février. avant dañ daa xëy 7 heures du matin bi 6 heures du matin wàcc 0 heure sans problème. mais léegi moom loolu mënatuñu ko waaw. maanaam site bi da doon waa da fees waa da fees dell fi nga taxaw nii daawoo fi taxaw ngir ay jigéen ngir produit mais léegi produit mënatuñu ko am. jigéen ñi itam léegi ñu bëri wàññeeku nañu waaw parce que tam wér gi daal moo leen yombule. liggéey bii jëm ci wàllu keccaax doon na loo xam ne dina indi ay millions yi millions ci soxna yi nga xam ne nag ñoom depuis un an jàpp nañu ne seeni koppar ma ngay wàññeeku ci wàll woowu. ndax nag liggéey ba na mu doxee doxeetul noonu ndax centrale bi. mois de novembre 2018 ñoom si lañ commencé seen seen production donc yàqu-yàqu yi mu fi dégg yëpp a mooy d'un an lañ ko yàqal waa Bargny. code de process nangam ndox mi nga xam ne mooy jóge si biir centrale bi te baaxul lépp dafa fekk suñuy production. feese ko yàq ko ba mujj gi ma dañu dem seeti huissier ak yëpp def loolu ñoom ñu gaawtu gaawtu gaawtu fay ko bañ problème am. perte bi duñ ko évaluer parce que perte euh, fu nit di liggéeyee boo xoolee kenn mënu kaa évaluer ndax. foo xamee ne chaque jour da nga fa daan liggéey léegi di nga toog deux mois doo fa liggéey parce que ndox ma daf fa taa donc am na manque à gagner bu nga xamee ne daf si bokk mais si ni ñu nekkee woon noonu rek bi ñu calculer presque doonoon na ay un million et ñu fay ko jox ko jigéen ñi nga xam ne ñoom la seen jën yàqu woon mais nag loolu boo xoolee du ndàmpaayu yàqu-yàqu bi ñu xam ne moom lañ ci wàllu koom-koom lu jëm ci seen wàllu wér-gu-yaram itamit ñu koy wax ndax nag gis nañu ne ni ki saxaar suy jugee ci biir centrale bi lii di këriñ gi ax nag euh, pënd bi ñu ko juug muy mën a naaw saa su ne ñoom ñu koy daal di yi xale yi léegi ku si juddu yaa ngi ànd sa sa sa sa maladie dënn xale yaa ngi sëqët xale yaa ngi day ñun ñi fi nekk itam di liggéey wax fa dëgg yàlla newuñu en bonne santé donc. li yoom li ñu doon wax comme central nga fi ñu fi hôpital mais kay ngay yóbbu hôpital da fekk mu lu mu fajo kuy am sa économie ku ko rey goo ma ne dina am am nga leneen loo nga xam ne boo feebaree di nga dem di ko di ko sonn soxna yi fu ñu taxaw rek dañuy waxtaane centrale bi ak jafe-jafe ci wàllu wér yaram soxna si moom di nettali feebaram beneen ni moroomam jàpp na lépp ma nga jóge ci saxaaru centrale bi. parce que saxaar si ñaari façon saxaar mooy jóge ci site saxaar suy jóge ci centrale bu Sendou bi. ba ca des di saxaar bu jóge ci situ xelkom bi te na ñuy lakkee jën bi soxna Fatou sàmba di ci indi ay leeral. ku nekk xam na site de transformation bañ juddoo suñuy maamaat suñuy maamaat transformation produit halieutique daf fi sax boo xoolee noonu du métier mu ñuy jàng da ngay judd fekke ka continuer di ko def te ba ñu juddoo de fekk ba léegi yàlla mi tiim xam na ne gisuñu kenn ko nga xamante ne feebar na noonu saxaar kee ko de parce que kopp la ñuy taal te kopp ku nekk xam na ne amul matière organique. bokkul boo waxoon tey dañ laan dañuy pël ñoom ñuy pël mais ñoom la ñu yor ak ñun li ñu yor xam nañ ko ñun bari ñu ba ñu suñuy maama suñuy maamaat lii fi lañ fekk liggéey bi te bañ ko fekkee ba léegi fa dëgg yàlla gisuñu mais central bi mu fi nekkee ñun xam nañ ne ay maladi pulmonaire daf fi yokku. ngir soxna si li ci gën a métti sax ci mbir bi mooy dafa indi ab impact psychologique ak ci soxna yi. am na loo xam ne sax du doon yàqu-yàqu euh, économiquement mais psychologiquement ab yàqu-yàqu la ndax toog fi mu nekk jigéen ñi koo wax bu ñu gisee ku ñëw dañ naan mbaa du dañ ñu fay jëlee donc loolu toujours mu ngi seen xel centrale bu dawee est que waa site de transformation bi duñ leen fi jëlee ñooy leen en tout cas ñun liñ ci man ñu ngi koy def mooy fépp fu ñu war a waxee duñ ñu fa waxee fépp fu ñu war a euh, combattre centrale bi duñ ñu ko def donc loolu mooy première euh, yàqu-yàqu mooy état psychologique bi nga xam ne moom la nit ñi moom la nit ñi nekk. ci activité yu ñuy liggéey doon na ay activité yoo xam ne